tey euh, dañu ñëwoon pour def conférence de presse mooy si wàllu TER bi gàllankoor yu ñu teg mooy ñi nga xamante ne dañoo war a jot seen chèque te jotuñu ko ak place yi nga xamante ne dafa nekk La Rochette état ne woon ñu daf ñu koy tabaxal euh, si diiru 6 mois mu amoon euh, place yoo xamante ne dañ ko joxoon fii si camp bi te bañ ñu ko joxe anam bañ ñu ko joxe dañ ne ñu amul contrat ñu nekk fi. commencé si am ay jafe-jafe ak ay tolof-tolof moo taxoon ñu bëgg a génn def euh, conférence de presse pour wax ak askan bi wax ak autorités yi waa yëglu nañu jaar nañu fu ñu war a jaar dem nañu si monsieur le maire mais fekkuñu ko fa mais kaddoom jàll na foofu mooy pour ñu def ko. ah ñu yor suñu ñu yor suñu problème yi dañoo dumóoyu ñu yor suñu problème dañoo dumóoyu kenn dong moo nangoo muy adjoint préfet moom nañu bind lettre préfet nañu bind lettre mais adjoint nañ toogaloon doon waxtaan ak moom si wàllu place ñoo récupéré te moom wax na li nga xamante ni moo leer suñu nopp mooy jox jox ñu kenn autorisation pour ñu récupérer place yi ba loolu ñu dox ko ba mu féete côté mu dene mu doon leneen tamit li nga xamante ne muy wàllu chèque yi wàllu chèque yi nga xamante ni ñu ngi ko war a fayeeku mu doon ay plus 200 personnes ba 300 personnes ñu war a fayeeku te waa APIX ñoo taxaw ne fay nañ ñëpp ñu ngi fay def ay démarches mais dañ ne chèques yi génnagul ñu ñuy dox si loolu ba léegi ñu si am benn. Euh, solution boo xamante ni dinañu si dimbali wala ñu wàlluñu wàllu suñu moo tax nag tey ñu buggoon génn def conférence de presse mais commandant bi dafa ne nañu bàyyi ba am euh, autorisation pour ñu soog ko mën a def te topp nañu ndigalam moo tax ñu génn def point de presse bi pour mën a wax. waa bu dee gars yi faj ñu mbir bi comme euh, commandant bi nu mu ko waxee dañ koy jaarale fu mu war a jaar mooy ñu déposer li nga xamante ni mooy. autorisation bi pour def suñu point de presse pour autorité yi mën ñoo dégg mën ñoo bàyyi xel xam ñi nekk caaro yi ñoom ñooy ñan parce que ñun ñu ñu jiitaloon dañoo dem ba duñ ñu wax dëgg duñ ñu wax li nga xamante ni moo nekk ñun ñu taxaw volontaire bëgg jël mbir bi def ko suñu yëfu bopp euh, xeex ko ak euh, diplomatie ba autorités yi dégg ñu xam ban position nañ nekk ak fan nañu toogee ñu mën ñoo gëstu fajal ñu suñuy tolof tolof yi nga xamante ñu koy dund biir marché Thiaroye waaw conférence bi ñu naroon def dañ ñu koo tere comme commissaire bi caaro yi moo ñu woo ba mu ñu woowee mu ne euh, papier bu ñu déposé dafa def retard dafa def retard comme que noonu la ko waxee te neen noonu la ko yoon waxee dañ koy def comme nu ko yoon waxee léegi ñun dañuy déposé waat beneen papier parce que dañuy déposé waat beneen papier euh, si préfet mu jox ñu autorisation boobu ñun ñu def euh, conférence de presse nit ñi tamit taxawoon nañu bëri woon nañ fi ñu dañ leen obligé tas ñoom ñëpp comme nu ko commandant bi waxee ñu ñu soog a génn si télé bi pour mën a wax li nga xamante ni moo ñu gàllankoor ba defuñu conférence de presse. bëgg nañu autorité yi dégguñu bëgg nañu autorités yi dégg bu baax parce que caaro yi moment bi ñu nekk ni jéggi na dayoo parce que fii amul porte amul foo mën a jaar amul buntu boo mën a jaar porte yëpp euh, lépp a fermé. amul fenn foo mën a jaar pour dugg si biir camp bi métti na trop gëstuwuñu dafa mel ni boolewuñu si si si si askan bi quoi parce que ñun tamit dañuy xëy di ñëw caaro di daan suñu doole di yóbbu suñu njaboot si si anam bu lew ah, kon amaana ñun Sénégal nañu bokk war nañu mën a gëstu xool ñun ñooy ñan parce que ñun tamit luy doxal euh, réew mi si nañu bokk euh, ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan euh, autorités yi gëstuñu bu baax a baax a baax a baax waaw mooy comme ni ko bàcc waxee rek ñun ay impacteurs lañ dañoo ñoo nekkoon ci marché bi di liggéey état bi ñëw toj suñuy place depuis 2018 booba léegi ñu ngi ci camp dugal ñu ci camp Thiaro yi marché Ali Diallo biñ fi duggee ba léegi nag depuis 2016 la ñu recensé 2018 lañ toj marché bi ñu ngi toog di xaar suñu chèque mënuñu koo jot kenn fayuñu léegi nag toog nañ ba sonn nawet baa ngi ñëw marché bi baaxul ci ñun arrangé wuñ parce que marché bi day taa trois mois yi doo liggéey benn client munu fi jaar ñu ne nañ def suñ conférence de presse yuuxu ndax état bi dégguñu walla ñu léegi fi ñu war a jaar biñ fa jaaree ñëw nañ commissaire yi woo nañu wax nañu ne carrément papier bi ñu leen jox da ngeen di wutaat déposé waat beneen d'ici ñaar d'ici deux jours trois jours waaw vingt quatre heures léegi nag ñun suñ euh, suñ conférence de presse defee wuñ ko lu dul wax suñu jafe-jafe ñun ay jafe-jafe la ñuy dund terre bi yàq na yóbbu na yóbbu nañu terre yàq na suñuy place suñu liggéey doxatul li ñu bi ñu préfet dugal place yi fi nekk waa marché bi ñu ngi koy nangu ñu ngi jaar ci suuf di ko nangu parce que ñoom nee nañ APIX fayu leen léegi ñoom date euh, délai bi jeex na dañuy nangu place yi léegi nag wala fee problème am wala histoire di fi am ñu dénoncé ko état bi dégg ko waaw marché bi nga xam ne dañu ñu koy tabaxal fii ci camp bi liggéey bi arrêté na léegi ñun xamuñ ci lan lañ nekk li ñu desee nag mooy ñu dem ci média yi woote ndax état dégguñu gëstu ñu léegi nag commissaire bu Thiaroye ñun d'accord nañ ak moom parce que tamit commissaire la li mu ñu wax dégg nañ ko wax nañu li mu ñu wax nee nañu seen kayit bi normalul léegi deux jours trois ñu lijjanti mais dinañ def suñ conférence de presse parce que ñun ay impact lañ état moo ñu ameel xaalis état moo toj suñuy place war a ñoo fay fayu ñunu dañuy